tax tey gii ñu woote daje bii muy Idrissa Seck Seck dafa nekkoon ci parti PDS nekk ci kepparu Ablaye Wade en 2004 mu quitté ci gouvernement Ablaye Wade guddi gi ma njëkkee dégg Ablaye Wade def déclaration ni Idrissa Seck dafa sàcc xaalis parce que dama koo dénkoon kees mu dem jël lu ëpp dépensé loolu mooy coow li nañ ko lijjanti bi may dégg bande sonore bi ci Walfadjri yaakaar naa minuit la keroog bi ma xëyee matul 24 heures ci laa commencé di défendre Idrissa Seck kon yaakaar naa ni kuy wàcc ci Idrissa Seck fii ci barab bii ci département bii ci sama loxo yi ci nga wàcc li may wax. ñii fi toog mat nañ ci seede wala Serigne Ndiaye Diop mii toog mat na ci seede yaakaar naa ni lépp fi la ko fekk kon parti bu réew mii lu fi am wala luñ fi def wala luñ fiy wax am naa ci responsabilité xam naa ci dara maa ngi baalu àq nag d'abord mboolem ñi nga xam ni amoon nañ kersak jàkkaarloog man ni ma mënatuñu. di demee ngor ak jom ànd ak man di puus Idrissa Seck ndeke ki ñu doon puus du waajo maa ngi leen di jégalu bu baax ñu bari nag yay nañ ma nangu naa ne itam yay nañ ma ndax 2004 ba vingt 2023 du benn at du ñaari at keroog ba muy njëkk a ñëw Touba gii maa jàpp ci loxoom Cheikh Mbacke Sakho yal na ko yàlla yërëm ànd ak moom ak ku ñuy wax Fallou ture jëlee ko ci aéroport bii tooxi doon wu nekk mu dem ko fi nag waaye ñu takk suñu bër rek gumba lu ni xëy na buñ ko sangee wala ñu defar ko wala ñu waxtaan ak moom yedd ko ci néeg xëy na war nañ koo mën a defar ba nit ñi mën koo jëriñoo waaye ndekke yoo baadoo la baadoo la loo sang sang loo yedd yedd loo jënd jasneer wala bu boo jënd solal ko boo xippee xool ko mu di baadoo la rek jikkoog borom nag jikkoog borom nag pax sa Seck jikkoom ji mu àndal fukki at juróom ñaar ma nekk ceeg moom di ko sang di ko teete ngir bëgg mu jóge ci billaahi bu ma ko mënta dindi keneen mënu ko ca dindi ndax workat la war gi dindi nañ ko ci ma ba tàyyi ndax ñun waaw ñun lu tax ba suñu bokk mbàkke mbàkke yi sëñ ak moom sëñ Mourou Boussa Dieng ku ne xam na ko sëriñ Abdoulaye Djili ku ne xam na ko sëriñ Djili Kebe ku ne xam na ko mu sëriñ saali waaye ñoom ñëpp bañ bàyyee lu ñu tee bàyyi ñoom dañoo dëgëram bopp dañoo dëgëram bopp rek waaye dem nañ ba xam ni ndeke ñun daanaa ko wax ñi nga xam ne dañoo bokkaloon parti bi ni leen kii billahi danañu tay ci garab tayaale boppam ci garab dana tay boppam ci garab tayaale ñu ci garab li ma gën a naqari ci sama àdduna mooy coono bi ma daj ci ñii nga xamante ni bii ñoom lay àndal jigéen ñii li ñu daj àndak ak ñun di muñ jeunesse bi fu ñu leen joxoon jëm ñu jëm fa muñ rek ngir jàpp ni maanaam waa jii nga xam ne ñi ngi koy sang ak a teete dana masa xippi xool ay bëtam war yi nekk ci moom triant yi nekk ci moom ak ñeme ak gi nekk ci moom dana masa deñ ndeke moom lii da koo judduwaale ñi nga xam ne nag ngeen baal ma seen yéen mbokki géwél yi nga xam ne ay waxkat lu baax ngeen nit ñu baax ngeen defare rek ngeen di def seen askan wi am na ku leen rax de am na ku leen rax ak laay yéen yi nga xam ne da ngeen di defare di jubóole di def lu baax fu ngeen fekk lu baax ñaw ba mu baax yéen am ngeen responsabilité am na ku leen rax am na ku leen rax leen rax rax na leen te na ngeen waxtaan ngeen génne ko ci kuréel bi rax na leen ndax nit kuy wor du defar nit ku amul couleur du defar bu leen neexee nag ñu ne waa tax mu wax ko tey nit ki boo àndut ak moom nit ki boo àndut ak moom taxawoo ak moom loo wax ci moom dañ koo sas wala dañ la ko nettali damaa taxaw ak moom ànd ak moom moo tax ma xam ne nekk ci moom ba ma demee ba mënatumaa dem sañ naa taxaw ne lii tax mënatumaa dem lii moo tax mënatumaa dem ku ko dégg dana ko jaaxal parce que da nga ni fukki at ak nangam lu ko wut nay leer ma ne nekk ci Idriss Seck ba tey muy wax ni damaa sonn naan naar balaa dee waxi wolof damaa sonn toq tay yi Ambay Touré moo tax ñu man koo jël nag lem ko ba mu jekk ñu enveloppé ko teg nee li may attiré attention sénégalais yépp nag mooy ñu bàyyi ci xel ku ne gis na ni fan yii dafa am problème bu bopp dafa dépressionné gis nga kii bu yeboo ñu seet pexe ci moom yóbbu ko reféné li dem mbaaw gee wutul ko foofu sàmbul buñ ko defut buñ ko joxatee responsabilité ci réew mi adduna mën naa tukki président Macky Sall dinaa ko sant entre parenthèse parce que xam nga lu tax moo ñu gindi moo ñu gindi parce que gis nga Idriss Seck bu doon président Macky mbiram mën naa nekk di ñu lënt ba ñu jël réew mi jox ko loxo te kon ñu àll ko ñun waaye ndox nag. ba président Macky Sall mën a dikk détecté ñu Idrissa Seck ba sénégalais xam kan mooy Idrissa Seck mais ma nga dugg ci gouvernement bi tàgguwuñu fukki weer ak juróom nga di ko waxtaan nekk ci nit ko deux cent et quelque ñu jox la bit say milliards nga jël xaalis ba yàgg sa doom sa doom di dem di shopping di jëndi oto yu seer waaw ñun ñii ñu àndal xanaa dañoo bëgg dara ñii ñu àndal bëgg dara buñ demee ba nga xam ne xam nañ ni kii nag liñ ko jox moom ak doomam dong dong moo tax moo tax ñu Idrissa Seck mi bis ki tey danañ volontaire lu ñu neex ak lu ñu naqar lépp danañ ko enveloppé ba mu jekk ñu jël ko teg nee ca poubelle ba man moo Modou Sall nay leer coordonnateur des jeunes parti Rewmi département bu Mbacké commune Touba maay xamal àdduna bépp ni leen maa jàppoon Idrissa Seck maa ko bàyyi bis ki tey bu yoroon billaahi buñ deman ba nga xamante ne miraakal dem na ba Idrissa Seck suñu borom jox ko réew mi man Salla Nay Leer bokkuma ak Idrissa Seck dara bokkuma ci daraam may naa nit ñi xippi naa samay bët di leen xool ak moom lu mu leen dafa baax xanaa loolu leer kii li ñu daj ci moom dinaa ci dellu si léegi fi may daaneel samay kàddu Mouhamed mii ñu àndal gis ngeen ñun dañuy dañuy ay gor xaalis daf ñoo tiitalu fukk dañoo yóbbuwul dafa ñëw fekk ñu ci li ñu nekk mu def ci dooleem def ci alalam ànd ak que dañoo nekkutoon ci ay intérêt personnel dañoo nekkoon ci ay intérêt commun parce que dañoo jàpp ni ñun ñëpp war nañoo mën a jàpp puus egris Seck jël réew mi ñu gis ni maanaam réew mi sensé na waaye jóguñ woon ngir suñ intérêt bopp parce que lu ne traversé na ku fi Ablaye Wade bàyyi nga dikk nekk fekk Macky Sall ba ba Idriss Seck boolee la taxañ ci benn saako yóbbu la ci Macky Sall waay boo bëgg a dem du la fa bàyyi léegi nag ci biir loolu moo tax ñun ñu gore ànd ak Mohamed nii investir nañ ko ci liste keroog bañ ko investir ci liste bi ku ne gis na ci campagne législative yi maa njëkk taxaw ni Idriss Seck buñ perte élection yii am na ci responsabilité parce que mënuloo investir ku toll nii ci département bi muy génne alalam di ko ci def sa ñaari salaamaaleykum defoo ko ci ba pare wëlbatiku ni ci yow la bokk kooku kon bu ñàkkee am nga ci responsabilité te waxoon naa ni est-ce que Idrissa Seck nekkul sax di détecter pour miiner Macky Sall mi nga xam ne daf ko fat ci këram parce que gis nga borom bi ba muy wax Moussa ak Aarouna fekk leen fi xam ne ci yar ak teggin bu woon lu ñu ànd Idrissa Seck ak damam ci Macky Sall ku yebbu xippi say bët te xool xam nga génn di ngeen dégg wax leneen parce que xam nga nit ku boppam perte amatul conscience tranquille mémoire bi def lu mu xam dana ko julli te di ngeen dégg mu wax leneen ku ko wool woon kër Ousmane Sonko ku ko fa yebal tuba yi ko la bañ boo ko séenee ci sa taatu xarit moytul lam wax ba jot ca sab de rafetut Idriss Seck lam waxtaanee ak Ousmane Sonko waxu ko nit ñi lam waxtaanee ak Ousmane Sonko waxu ko nit ñi kooku nag dansé la ci réew mi adduna bépp opinion internationale ñu ngi leen di attirer attention ak sénégalais yépp di leen xamal ni kooku nañ ko jël yóbbu ko refene li de mbaaw jox ko ay comprimé faj ko ndax nit ku nit ku wér nit ku nit ku normal kon fi may daaneel samay kàddu rek mooy baluwaat ak département bu Mbàkke góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi li tax nag mooy dañ leen perte le temps parce que ñu bari danañ dégg sama kàddu ma yëkkat sama kàddu man nekkuma fi pour kenn xam nga kan laa fi nekkal waa département bu Mbàkke waa commune Touba ku nekk dégg na bi nga xamante ni dem nañ ba fii defi financement li ma ci daj yëkkati sama kàddu ku nekk ni jigéen ñii nañ leen jàppale jox leen ci financement yi bu leen kenn nax ku nekk gis na ni mbënn mii bi mu fi amee ma nekk ci conseil municipal bu Touba ak ba ma ca nekkul dama cee taxaw di ko xeex ba tey jii boo demee ci Kër Ñang gee waa Kër Ñang ngi di ma seede Sinwaa yaa ngi fa di fa def canal boo xam ne boo ci dugalee oto mu jaar jàll man ci combat boobu laa nekk nekkuma fi pour dee dama fay nekk pour dund. comme a fee nekk pour dund nag képp koo xam ne gis naa la ngay dox ci intérêt boo xam ne intérêt tout waa Touba la intérêt njëriñu département bu Mbacké la kooku man dinaa ànd ak yow parce que nekkuma pour sama intérêt bopp. loolu nag bu fekkente ni président mi ngi taxawal di ci taxaw di ko def danañ ko saluer nag danañ ko rafetlu yéen ñi nag buñ leen seetaan parce que lii nga xamante ni bii biir sa réew mi la ñuy jël ay financement di ko jox jigéen ñi di jël ay financement di ko jox ndaw ñi. loolu nag du ñu bàyyi kat mukk di àndate ku mel ni Idriss Seck mi nga xam ne boo demee di jël di def ci boppam ñu continuer rek di ko pousse déedéet dañuy dem pour wutal leen ci financement yooyu dañuy dem pour taxawu ndaw ñi danañ dem pour taxawu jigéen ñi ba lépp lu mu laaj nag danañ ko def parce que suñu bopp ngir bu ñu dee sacrifice suñu bopp ngir yéen itam danañ sacrifice suñu bopp ngir yéen kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xam ne ñun yéen la en tout bis ni daal na ngeen xam ni Idrissa moom lem nañ ko ba mu jekk sànni ko ca poubelle mbalit ba ak képp ku mu àndal président Macky Sall nag danañ ko attiré waat attention parce que Idriss Seck duñ doyal ci moom ndax am na ñoo xam ne daf leen a jox ay ndombay tànk ci li nga xam ne moo ko yor nit nag bu fekkee da laa joxal ay nit ndombay tànk ñu wëlbati koo jël jaas yi jooju nga leen jox bëgg la koo xeexe jëlal say responsabilité ci ñoom te it Idriss nañ ko audité lim yoroon xaalisu réew mi la yoroon nañ ko audité ndax réew mi yëpp ko bokk ndax ñu jox lay mi koo xam ne waroon naa mën a def ay forage koo xam ne waroon naa mën a def ay hôpital boo xam ne war na mën a def ay godron latri nga defar say tool tabax sa université bam ni boy ba nga feebaree amoo ñaari salaamaaleykum yoo fajoo jël biir si réew mi faju ci demaat tëdd wëlbatiku ni damay xeex kooku nañ seetaan mbiram parce réew mi nag ci ay loi di ko banaliser duñ nangu itam di jël xaalis si réew mi di ko def ci boppam di ko ngar dajoo te doo ko bokk ak réew mi doo ko def ci réew mi liñ la sant ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam